ñu bari ñu ngi may wax dima dima laaj mu fàttewaat ko muy leen daal digle ci rajab dañoo wax ne julleeg guddig ajuma gi njëkk ci rajab guddi ajuma gi ci njëkk na mooy alxamis ci guddi kon mooy suba ci guddi alxamis ji ci guddi mooy mooy mooy mooy guddig gi njëkk ci rajab dañoo santaani ku fa julli ku fa julli fukki raka ak ñaar te rakka ak ñaar yi eh, na nga koy def mooy rakka mu nekk da ngay jàng faatiha benn yoon inna ansalnaahu ñett yoon xam naa ñu ko yittewoo dañ ko dañ ko dañ koy enregistré ngir mu bañ leen rëcc rakka bu nekk nga jàng faatiha benn inna ansalnaahu ñetti yoon xul wallaahu at muy lexlaas fukki yoon ak ñaar ñaari rakka yoo sëlmal waaye rakka bu nekk loolu nga cay jàng ma baamu ko fatiha benn yoon inna ansalnaahu ñetti yoon xul wallaahu adun fukki yoon ak ñaar soo noppee ba nga xam ne sëlmal nga ci fukkeel rakkaa beeg nga wax allahumma salli ala sayyidi ala sayyidina wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman ma baam ko allahuma salli ala sayidina muhammadin annabiyil lummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman nga wax ko juróom-ñaar fukki yoon daal sujjoot ab sujjoot mel ni kuy kuy julli xam nga julli nga jeexoon waaye nga sujjootaat mel ni kuy julli wax ci sujjoot bi ne subuhun rabbul malaikati war ruux juróom-ñaar fukki yoon mm-hmm. subuhun khuddusun rabbul malaikati war ruhi ma Maka juróom ñaar fukkoon ci biir sujjóot bi da di sigi tok mel ni koy tay wax rabbi warham wa tajawas amma ta'lam fa innaka antal azizul a'zam ma baamu Rab rabbi warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul azam mooy wax juróom-ñaar fukki yoon sujjootaat beneen sujjoot waxaat la nga waxoon ci sujjoot njëkk ba mooy subbuhun xuddusun rabbul malaakati war ruux su àggee nga ñaan sa aajo dooru lañ ca wax ci ay njariñ nag bari na lool njariñ wax na ni bi ñaanee aajoom ci sujjoot boobu lum ca ñaan sun boom da koy nangu yenn saa sama wax ne giñ naa ci ki nga xam sama bakkan mi loxoom amul benn jaam góor mbaa bu jigéen bu julli julli gii loolu yàlla jéggal koy bakkaaram donte ay bakkan dafa tolloon ni duusi géej gi mbaa mu bare ni feppi suuf si mbaa mu toll ni màndaxem doj yi mbaa mu toll ni toqi ndox yi taw yi mbaa mu bare ni mu bare ni xobi garab yi lépp bakkaar nu mën a toll suñu borom dana koy jéggal te bis penc def na ko ràmmuloo juróom ñaar téeméer ci ay bokkam su àggee ci guddi gi guddeem gu njëkk ci bàmmeelam yoolu julli gi da koy dikkal ci xarkanam gu tàlli ak làmmiñ wu neex na ko yasama borom yasama soppi bégal ndax mucc nga ci bépp tartar nga ne ko ay yow yaay kan man de ginnaa ci yàlla musumaa gis ko taaroo ni yow xarkanam musumaa dégg kàddu gu neex sa kàddu gi musumaa banati ko xet gu neex sa xet gi mu ne ko sama yow sama soppe man maay sa yoolu julli gi nga julli woon ci guddi sangam ci weer sangam ci at sangam dama lay dikkal ci guddi génn ngir fajal la saajo wettali la sag wet jañal la lépp li sama naqar su bis pencee suñu walee boftu bi maa lay maay doon mbaar mu lay keral bis pencee tàngoor wa ba ñu ngay aljanna na bégal te dootoo ñàkk aw yu ci sa borom ba mukk loolu lañ lim ne mooy njariñal julli kon nak gu mata def la gu mata fonk la inshallah allah kayit yi da nañ ko joxe fi inshallah allah bu soobee yalla ku ñew ci radio be soxla kayit yi man nga ko am waaye ku ko assuré ci sa portable man nga ko ja deglu eh, japp ko inshallah allah gëna digënté mi sa gee bu dégg aljuma gëna digënté mi mis ak kon suba ci alxamisi ji bu ñu timis bala gee ci digënté bobu lañ koy julli kon ñi ngi ñaan suñu bon defal na tawfiq ya, barke sel xadim alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh eh, jërëjëf señ mor jërëjëf mbokk kon mi ngoog japp na na xana war nañ ko enregistré kon ci téléphone yi wala war nañ koo dégg déggin woo xam ne dana leer ñëpp